adawa kulli lahini saarifal hilmati li rabbi taala rajian saq yahu bihma imaini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 تجن قياد الحرون من به راب مرودسا بن حنيد قاد تائعا له أمرني وهو فخري وعروتي وجليسي بأحادي سيد المزايا المكيني أحمد الحامدين أحمد خوزي ولربي بدعوات الكركوني يا إلهي عليه سل وسلم مع للوائه لليقين من صحاب تبت أهله لوكيل قد هداهم بنور حق اليقين رب هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتم عني نفيني يا إلهي يا من عليه اتكالي فك كبلي بروض أهل سفيني عجل الفات هوى جود بفيوض مخجلات سكبا سيكا بالدجون ربي وافكك أسري ورهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني rabbi inni abdun kathirul maasi fal maasi haa'i wa baa'i wa siini rabbi ni rabbi raqini rumashani zakkilin no na xam la fa in wasini xallini rabbi xallini bilmasaya misla shinil min qablihimi min washini listajib daawati bihima faqadanni wa bima faqa rabbi kulla gununi هب لي الكشف ذعه من وسعي وامح عني ما كان مثل جنوني هب لي اليوم يا إلهي رزقا صفي لي كالكلي بغير ريوني واعف عني وعني يا مل حقوقا للبرايا والتقدي عني ديوني والتجون لي بأن أكون خديما للكتاب العديد في كل حين هب لي اليوم أغزادي نيم قائما liyan bi xayri luxooli liksi fi isra rawaali hamudaho wawda sunnati l-aamini l-makiili salli dahban علي ربي وسلم ولتدم لي بإهليك سكوني ولتدل لي تلاوة وخياما في الليالي وارفع دهوى من شوني بمامي وملجائي ورئيسي وبه سرمدا تهوى اللموني الرجيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm tey balu ñëpp ak bu baax a baax a baax ci déplacement yi xam na ni jot amul waaye nag dafa doon loo xam ni mënta ñàkk mu doonoon loo xamante ni nag daayira maj mahu nóorey ni di fois yi daarey ni di ministre yi nga xamante ni ci jamonoy sëñ saaliwu la sëñ saaliwu tudd leen ministre yi sëñ Tuubaa yi ba pare moo ko tudde Majmahun Nurayni mu nekkoon ci loxo yi ñoom Baay Baaxe mii mooy ñu ko jiite woon ñu yoroon ko yor bu rafet li naan fondement bu dëgëree rek lu ne mën nga ko caa teg yor nañ ko yor bu rafet ba yëkkati ko teg ko ci suñu loxo ñi ngi jéem nag xëy na mu mënaguñ leen a dab waaye ñi ngi jéem bu baax lépp luñ mën ak lu mënul ñi ngi koy def moo tax tey jii bi nu toogee waxtaan xool ni dëkku sëriñ Touba yi mun ñu fee nekk di ministre di liggéey ci bant te waruñoo liggéey lenn loo xamante ni firnde na ni ñun ñu ngi ci dëkk bi ñu yàgg koo bëgg nag yombul ba yàlla dogal biñ ci waxtaanee ba déggoo biñ dikkeet mel ni bunt yëpp daa ubbeeku mu yomb ba yàlla dogal ñu jëf ci jëf joo xamante ni man nañ ni sax lan mébatoon romb na ko parce que bi ne dañuy yeesalaat bunt yëpp dikk ñëw jël ko defoon nañ ni loo xamante ne la xëy na sax duñ fi yàgg te depuis àllarba lañ ko tàmbali woon ba àllarba di tey muy une semaine li ci dugal nag bari na daanaka nag yëf Sëñ Tuubaa moom loo ci dugal moom gis ku ci def lu ko raw waaw waaye daal comme ci ñi fi toog ak ñi fi kii ak yooyu million bi moom teg na moom te yaakaaroon nañ ne du fa yegg waaye nag luñ def rek xeeb ko génne dem jëndi lan bise ba njëkkoon a programme moom ca ñaari fan ya la yem nga xam ni kon xëy na lépp moom yëfi sëñ Touba la rek moo tax mu yombal lépp ndax luñ ci def xeeb bañ nañ ko ba matériel bi ñu fi indi duñ ko liggéeye sax suñuy place lépp ndax fonk bis bi fonk jataay bi fonk fii moo tax ñu def ko bi nu pareet ñii nga xam ne ñoo jiite woon daayira bi ñu ni balañ cee def lenn dinañ leen woo ba ñu ñëw ñu wan leen ni ah li ngeen ñu joxoon te def nañ ci lii xool leen nag bu amee lenn luñ ciy retapé bu ëllëgee ñu gën koo bàyyi xel xëy na moom lu ñàkk munta ñàkk moo tax tey jii ñu woo leen jataay bi sëriñ bi nag mi ngi nii bin dikkeet moo ñu ko jox te euh, lam ñu waxoon it xëy na mën naa ni buñ nuñu lépp xëy na nit moom matul ñëpp yamuñu parce que yaboon nañ ñu teg ñu ci ay sart looloo lu dëgg la parce que bërëb bi moo laaj loolu waaye ban dikket fexe nañ ba sàmmanteeg euh, lañ ñu waxoon lépp parce que nee nañ ne ah liggéey Serigne Touba yombul te wax na dëgg yombul man nga fee defaroo man nga fee yàqoo te yaakaar naa ne fi mu toll nii comme que xol yëpp sedd na dañ fee defaroo waaw parce que jot naa ci wo fer li naan for naa ci wewu nag ñu ni mel na ni ku baax ki yëg na ko ba rafetlu ko te dañu woon sax xëy na dan ma caa njëkk waaye moom mi ngi ko doon waajal far mi ngi ko doon waajal ba nit nan xool bu fekkee lañ ca def. lu doyul ma man ma dolli ko ñu moo kam ko doon wax mu ni ko def nañ lépp kon loola taw féex la te ñu ngi doon xalaat loolu di ko yaakaar comme que moom yegg na ba ca moom alhamdulilahi rabbi alamina kon daal ñu ngi ciy ñaan gërëm képp kenn ku nekk aajo joo fi indi yàlla na saafaraw ci barke borom bërëb bii ci barke borom Touba defal ñëpp jàmm defal ñëpp xéewal tey sant mag ñi nag bu baax a baax di leen ñaanal parce que nag lépp ñooma rek buñ ko téyee woon na nit amaana du yegg si waaye li ma ci wax rek sama njëlbeenu wax dabagun leen waaye nag ñi ngi jéem bu baax a baax ñoom it nañuy xool rek lu dëng ñu wax ñuy jubbanti parce que jubbanti noot weesul weesul parce que ay gone lanu ay ndaw lanu buñ dajee kenn ku ci nekk li naan civil munta yar moroomam loolu moo ci am boo gisee kenn ku ne boo kee ñu yab la ak wutoon gilet yi di la ko solal pour jox barab bi worma la lépp lañ jublu ñi ñëpp nag xamee nañ ko noonu alhamdulilah rabbil alamin parce que ñu ngi ciy sant yàlla parce que am nañ ci loo xamante ni ah man boo xaw ma ñëpp jàpp nañ koom déet tegale ñeenti waxtu julli ko ci jumaay ji man ba ma duggee Tuubaa ba léegi maa ngi koy soog a def ci liggéey bi xaw ma nag ku ko mos a def man kaneen waaye ñeenti waxtu lool rek moom jar na liggéey si fi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aousu billahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Abdou Bakhi ak sëriñ Fallou ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a sell ci turu daayiratu Muxaddamatul Xidma di nuyu mboolem waa daayira Majmahun Nurayni gannaaw nag bu ñu jiitalee suñuy nuyoo ak suñuy ziyaara ak sunu yeesal sunu taalibe ci Cheikh Mouhamadul Mountakha jaarale ko ci ndawam lii mi toog di sëriñ Maam Mor Mbacke mu yebal ko ngir mu ñëw teewee yeewee ko bii nga xam ne moom lañ war a ci liggéey bii nga xam ne moom lañ doon def xëy na moo kàddug sëriñ bi moom moo ko amee ay cantam ak ñaanam itam moom moo ko amee. loolu nag su ngeen gisee ñu def ko xol dafa sedd guyu ci liggéey bii nga xam ne seen njaboot gii nga xam ne ñoo fi nekkoon di daayira Majmahun Nurayni def nañ ko fii ci jumaa ji keroog ba ñu ñëwee eh, ba ma dañ njëkkee seen ñu taxaw ci buntu bee damaa yebal sëñ Moussa Mbeng mi nga xam ne fii la nekk ne ko demal déedéet keneen laa yebal ne ko demal xool ma ñëwee ba xam lu ñuy def mu ñëw woo leen ñu ñëw ñu ne ñoom dañooy daayira ministère bi nekk ci dëkk bi dañ doon xool ba xam lu ñu fi mën a defar a ne ah ne waaw di ne kon ngeen fi mbokk ki yore magasin bi kat ministère la Moussa daal di yónnee woolu si Moussa mais ni ko àndal ak ñoom ngeen xool lépp ba noppi ñu àndee xool lépp ba ca ëllëg ñu del si wax ni gis nañu lépp dañoo amoon yéene li fi yàqu defaraat ko ma ah, kon nag loolu moom bala ñu ci mën a joxe lenn dañuy bokk toog waxtaane ko bañ ñëwee ñu wax leen barab bi li mu laaj ci worma ak yitte ak moytu fox ak moytu jaxasoo ak yee ca yëpp daal ci ay teggin yoo xam ne barab bi laaj na ko xamal leen ni ne am na ay ma ay mag ñu fi daan ñëw di ko liggéey te nii lañ ko daan liggéey ñu xamal ñu ne ah ñooñu kat ñooy suñuy kilifa ñooy suñuy mag ci ñoom lañ bàyyi ko waaw kon dayom loolu dana yomba lijjanti waaye lu mën a xew doxee leen nii ñu ne bisimilah kon dem leen xool baxtu ngeen ko mën a tàmbali rek baax na ñu dem ba waaj ba jekk dellusiwaat bañ dellusee it boobu ba léegi sëñ Mamoor ñu ngi leen booleeg ñoo xam ne ñu ngi leen di xool ba xam ne lañ waxonte woon ak ñoom ñu ngi koy sàmmonteeg moom ak déet ndax barab bi dafa doy waar te jamono egg foo xam ne léegi da ngay nekk ci dara sax jàpp ne kenn bàyyiwul a xel dekati benn waaye nga fa sori yorub téléphone am téléphoné bu noppee nam koy commentaire sànni ko ci ci jaww ji mu dem fu ne la wax di jóge ñu gis nga nañ nekk béréb sàngam di nangam ñoom la ñuy def la def yàq sab dara yàqaale derub ñeneen ñu bari ñoo xam ni yow yëgoo ko woon ñooñu yëguñ ko woon jubluwoo ko woon ñooñu it jubluwuñ ko woon te mu doy war te téléphone fi muy jëlee ak fi muy sànnee dafa jege te ki xas ba sànni sax moom ci boppam sax mënatul la dàbbi la ma sànni woon yooyu yëpp ñu leeral leen ko waaye keroog bañ jógee ñëw sëñ Mamor ñu seereel la ko seereel ko sëñ Abdou baaxee ñoom ñi ba bésu tey bii am nañ fi ay bés ñu juróom-ñetti fan yoo xam ne ñi ngi liggéey dégguñu fi coow dégguñu fi werante dégguñu fi euh, raj loo ak coowoo ak nangam buñ njëkkee dañuy seddoo liggéey bi barab bu ne ña fa war a dem dem fa ña fa nekk lañu war a def rek la ñuy def dox nañ ba ci biir liggéey bi ñu gis ci loo xam ne sax xëy na ba ñuy wër gisuñ ko woon waaye taxul ñu ne dañuy yem rek te la ñu gisoon defar ko lii moom ginnaaw gisuñ ko woon nangam nangam waaye luñ dox ba àgg ca gis ne lii li lu ñu war a defaraat la dañ koy daal di dolli ci liggéey bi loolu moo tax barki démb ma demoon ci sëriñ ba leeral ko liggéey bi nii ma nañ ko waxee sëriñ Mamour mi teewe ko euh, la ci la ci sëñ bi waxoon it dana leen ko wax xëy na sëriñ bi ne ma waaw kon de xam naa luñ luñ bu fekkente ne am na luñ leen war a yi wala am na lu luñ lu luñ leen war a toppatoo ma ne ko ah Mbàkke ñoom de toppatoo nañ lépp bu xamal ma ne ah loolu foofu de lépp man la war luñ fay def maa ko war a def kon lu fay def man la ko defal waaye lu ca manqué naa ko yëg euh, kon nag bu ñu eggee ci di ko tëj mu yebal ndaw ngir mu ñëw sant si loolee moo waxoon rek lay lay firndeel ci ne moom lañ fa luñ fi def moom lañ ko defal waaye moom it nag yëg na ne moom lañ ko defal ba tax mu sàkk ndaw mu ñëw di leen sant nag bu baax di leen gërëm bu baax ci ànd gi nga xam ne moom lañ ànd liggéey bi ci turu daayiratu Muqaddamatul Xidma ak bàyyi gi ñu leen doon bàyyi xel yar bi nga xam ne ànd ngeen ak moom ak teggin yi nga xam ne moom ngeen àndal ci liggéey bi ak yéene ju réy ji nga xam ne moom ngeen ci def itam sëriñ bi ma di la xamal ne mboolem bunt bu nekk ci jumaa ji lii maa ngi ñaan nga do waxoon naa ko sëñ bi waaye nga waxaat ko defar nañ ko ba mu mel na mu meloon yaa teg sa bët mi nii nii na mu wàcc na mu wàcce woon gën rafet lii yàpp naa ne sax lii moo gën a rafet na mu wàcce woon te itam ni mu na mu wàcce woon it gën a dëgër nii ñu nii ñu ko bàyyi tey bu fekkente ne nii ñu ko def tey gën a dëgër sax nañ ko uh, wàcce woon te yemuñu ci waaye dugg nañu biir daaray kaamil la fa nekk lépp ci ay tegukaay yu téere ci ay bibliothèque te lépp loo xam ne nii lu fa nekk la rek te ñu di ko jëfandikoo ci jumaa yi yeesalaat nañ ko mel nii min bar bi ci boppam bi nga xam ne ci la ñuy taxaw di xutba moom itam defaraat nañ ko ba mu mel ba ba na gën kon day mel ne lépp luñ fi war a def rek defar nañ ko ba ba mu mel na mu na mu gëne noonu nag ay ndaw lañ rek yu fa nekk di seen mbokki taalibe yoo xam ne dañ di seereel liggéey bi ay liggéey koy liggéeyal te moom nag moo fiy Serigne Touba ngërëm Serigne Touba ci loxoom la nekk kon te ja waaye nag noonu ñu fi demee woon li ñu leen li ñu leen di seereel mooy yeeyoo nañu ngërëm moom mu wér a wér a wér euh, naa leen nag démb bi ma fi jaaree sama waxitaanu bi dong la waaye nag lu ma gëm la mooy kuy liggéeyal sëriñ Touba moom kaw rek lay jëm waaye du dellu gannaaw moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daf daan wax ne Serigne Touba laa doon liggéeyal ba samay moroom raw ma nopp ma su koo dégg bët mësu koo gis waaye nopp du ko dégg mukk bët du ko gis mukk itam pas-pas bi eh, fu mu toll rek fu seen pas-pas toll rek seen mbir seen yëkkatiku mbir mën na faa àgg daana wax nag ne moom Seexul Xadim bu leen ma gërëm gërëm leen lawbe bi moom yett ndab li bu leen ma sikk sikk leen ndab bi moom yekk eh, moom yett ndab li kenn ku ne rek na sa ndab toll seete na noonu la la koy doyee ndab luñ koy taaj nag moom am na fayda ju toll ne lam cay def moom am na ko ba mat sëkk waaye nag am na fayda ju toll ne lu def ci ndab lu taq waaye lu ndab tuuti tuuti nag mën na caa def ba waa nag bu tuutee bul ko sëkk yaa ko taaj ndab tuuti lu ndab rëy rëy it mën na koo di ba mu fees bu boobaa it bu keneen jàpp ne daa beral kee loxo kii da kee da koy taaj ndab lu mag rek nga taaj ko ndab lu ndaw kon mbir mi mi ngi mi ngi aju ci pastif yi innal fawaida fil aqaidi ci pas-pas rek ci la lépp nekk gëm naa ne lii liggéey bii nga xam ne liggéey ngeen ko ci barab bii seen mbir mën na cee yëkkati ko àdduna yëkkati ko ci àllaaxira mën ngeen cee xeetali ko àdduna xeetali ko ci àllaaxira xeetali ci seen i xeet ak seen bokk yëpp ndax Sëriñ Tuubaa li ñu dégg mu wax ko fii gisuñu mu wax ko fenn wax fir li man banaw bana binaa ahar rafia wax fir li am amrahum bihi jamia loolu yaakaar naa ne fiñ ñu ko gis bëriwut waaye daf caa teg ne wala jamia man aanahum ala binaiha wax naa leen démb ne leen kii indi sax wér ni bi ba mu egsi ci dëkk bi ngeen mën koo jëndi sax dimbale waale ngeen ko kii indi machine machine ba mën a raboter bant wala mu defar ba mu koy indi man naa am pas-pas bi taxutoon mu indi ko waaye jàpp ndal na seen liggéey bii day dugg ci wala jëmee amaan aanahum joojee bu boobaa nag na ngeen yëg yëg ne dimbale ngeen seen bopp dimbale ba dimbale ñu ngeen xamut te lii seen liggéey bii moo ko waral kon nag nañ sant yàlla bu baax ñaan yàgg ànd ak liggéey bi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg ci suñ kanam lool yàgg noo digal ñu yàgg koo jëfe te kenn ku fi jógee ku nekk koo delloo yëg ci sa bopp yokkute goo xam ne mosoo gis yokkute gu ni toll asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi min asheytaan rajim wa suriyataha min ثبتنا الله على الإيمان إلا في راق من شمال وبعد إن في قيام لا دخلنا على الأسماء الكرم طبعا waaw sëñ bi daanaka wax ji nga wax sax di ci delluwaat leer day mel ne man xamum fu mu war a tàmbalee ndax day mel ne li war a wax lépp wax nga ko xanaa kon sant rek laay def sant rek ndax lii de rëy na lool lool lool lool lool ba àgg ci lool ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñoo xam ne yaa leen yoroon bañ nekk ay goon di leen jàngal métier ñu dem a dem a dem ba la nga doon liggéey ñu dikk di la ko defal na ko bëggee su fekkee cant maanaam fa mu mënoon yem kon de mel ne faral yoo tàmbul tey nag lii ñuy liggéey sëñ Saliou dama cee waxoon rëy rëy keroog bi njëkkee njëkk liggéey buntu jumaa ji bañ demee ba ngoon dama woo mu ne ma sëñ Abdou de liggéey la boo xam ne nii ñëpp xañ nañ ci daa mel ne sëñ bi wax nga ko loolu say wax moom sax ko ci fasaaleel waaye kon nag maa ngi sàkku nag mbooloo mbooloo bi fi nekk yépp ngeen ñu fas ci sëriñ Mouhamadou taxaa liggéey bi mu bëggee liggéey sëriñ Touba su moroom may fanu gudd ak wér boo dana demal ne bay doon kiimtaan ci ci ci ci kër sëriñ Touba gépp ndax soo soxna maam astawaaro daa mel ne amoon na téeméer at ak ñeent fukk yu manqué tuuti ndax sëñ Cheikh Sarr ba fa nekkoon daa mel ne loolu moom ma ko doon nett neen sëñ Fallou ko wax nee am na téeméer at ak yu manqué yu manqué tuuti téeméer at ak ñeent fukk yu manqué tuuti ma ne ko ñaata la manqué mu ne ah loolu la ma sëñ Fallu waxoon kon nag loolee yàlla na ko yàlla ko def sëtam bii te daf gi lépp it nag mu ànd ak ak wér ah suñu borom wéral ko lool ba mu gën a nekk kéemtaan ndax yàlla de yonent yàlla noohin ma nga xam ne nii may na ko junni at yu manqué juróom fukk yàlla moo ko may rek moo fi nekk ba na gën kon nag te yàlla yonentu yàlla Nuux defal ko loo xam ne nii tax na mu may ko loolee da koo def ci coobaram rek kon nag ñu ngi sàkku ci sàkk ci mbooloom ñi ak ku ko dégg ñu ñaanal sëriñ Mouhamadou Mountakha mu liggéey ba li bëgg a liggéey te ñu ànd ko moom su morom kon nag danaa ci dent li bu gàtt bu bu gàtt boo xam ne keroog bi ñu liggéeyee ba àggal sëriñ Sall dama wool ma si bu si ak moom rek bu leen kenn rax bi ma ànd ak si mataar bu si ba ñëw sëñ Matar Bousso ne ko man ne Mbàkke jëmm ji nga ma boole de yéex gi ma ko yéexal na laa rëcc sëñ waa sëñ Saliou ne ko sant nañ ko bu baax de yow foofu daal ne suñu borom de ba mu yëpp dafa wax Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ko tànnal bi yónnent bi tànnee ba noppi mu gees Serigne ne ko tànnal bi Serigne Touba yi tànn nag ci la tànnal seen sa nekk ci la ko tànnal nit boppam mooy yéen ñooñu kon daayira bi bépp ministre boo xam ne ngaa nekk Touba soo ci duggut woon na ci dugg soo ci duggoon da nga ci gën a góorgóor ndax day def sëriñ Touba la sëñ ko sosoon te sëñ Saliou lu mu sos day gën a jëm kanam waaye du gën a deltu ginnaaw kooku mën naa ko wax ndax doomi wax mukk ma tegu sama su dee tàmbali sëñ Soye bu lu mu mosaan wax gis naa ko su dee soxna May lu mu gis naa ko su dee sëñ Saliou lu mu mosaan wax gis naa ko su dee sëñ Mourtala lu mu mosaan wax gis naa ko su dee ñëpp it yàlla dugal na suñu borom dimbali na ma jàpp suna ñoom waaw kon nag ñu ngi ñu ngi lay sant bu baax sang bi yaa fi nekk sëñ Mouhamadou Mountakha waaw nga santal ñu ko bu baax a baax ne ko ndongo sa ndongo yére sa jaam ya ñu ngi lay sant di ñaan nga gën fee yàgg liggéey sëñ Tuubaa liggéey bu mu ko bër bëgg tey lépp ñu ko moom kon daal daa nekk wax ji mën naa yom foofu rek walaa wasala sayyidina rasulillah moo la bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di lañ ñaanal jàmm ak xéwal yu bare bare bare waaw yëf yi moom kàddu sant la rek ndax mbir moom biñ ko amee nii moom ak cant rek moo ci war a topp waaw nag ñu ngi sant sëñ laat ndax lii kat moom bu amee moom moo ko waral ndax moo ñu yombalal ñu mën a dugg fii ba mën a liggéey fii ba liggéey bi demee ni ba ñëpp kontaan ci kon nag moom nii lañu ñu waral ak cant suñu borom mi xam ne daal moom moo yor lépp yar na ko gën a dëgëral yokk ak fanam yokk ak biiram gannaaw loolu nag maa ngi sant mbooloo bi tamit muy muy xale yëpp yi nga xam ne maam ñoo bokk ci daara yi eh, ci daayira Majmahun Nurayni ndax seen pas-pas moo tax ma leen sant ndax gone kat ndiki nii bari na lool waaye nag gone yi dañoo daw jëm jëm ci liggéey sëñ Touba. Mm-hmm. kon nag ñoom moom moom jar nañoo soñ jar nañoo ñee tamit ndax bari na ñoo xam ña nga ña nga daw jëm ci leneen kon nag ndegam ñii ñu ngi daw jëm ci lii loolu ak cant la ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom tamit maanaam lii ñu nekk yàlla na leen ci yàlla gën a xiir ngir mën a liggéey Serigne Touba ndax ñun loolu doog moo ñu fi moo ñu moo ñu fi bàyyi ndax ndegam ñi biir Touba moom borom Touba moom lam bëgg képp ci lañ war a nekk yal nañ ci yàlla xiiw nag maanaam ba lépp lu mu bëgg rek nekk ca loola waaw maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci cant gi tamit maanaam moom mooy maam liñ ma jël jiital ma ci seen kanam loolu tamit ba tey maa ngi sant ndax bari nañu fi nekk jiitaluñ kenn dañ maa tànn jiital ma ba loolu tax na fi nekk nii ma guddi xàmmewuma bëccëg xàmmewuma euh, yor yor luñ bëgg lu ne dama cee daw. ndax lañ ma jiital moo tax. ndax ak cant la boo xamante ni ma nit ma am ñoom mënu ma ñoom mënu ma leen a fay. mënu ne mënu mënu ma fay. sama yitte nag moom moom du yëg moom seeni soxla ñoom. waaw bu ma amoon sama yitte tamit moom seen ñoom ñu soxla sama yitte moom daggat moom. macha allah ci seeni soxla laay dox ba baa ñu ñu koy gis ñoo xamante ni maam noonu lañ ko tudd. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mu ngi leen di nuyu bu baax. di leen ziyaara waaye di leen bëggee di yëkkati ay kàddu yoo xam ne dafa bàyyeekoo ci sëriñ Touba sëriñ Mountakha di ko ñaanal suñu borom yàggal fu te wér wàcc ci suñu jëwrin di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif mu waroon ñëw toog jataay bi waaye mu am ngànt mu yebal ñu ñu ñëw teewal fi sëriñ bi waaye fekk fii ay ndawu sëriñ bi euh, te sëriñ Abdou Lahad Bousso miy toog euh, teewal fi waa mu xadmatul xidma damay wax ne euh, sëriñ Abdou Lahad euh, ñu ngi lay nuyu bu baax di turu sëriñ bi di la ziar waaye di jël nuyoo bi ak ziar bi di ko teg ci loxo sëriñ Abdoul Baaxe mii toog di kilifa yi ndaw waa Majmahun Nurayni waaye rawatina sëriñ Saliou Ndiaye mais nga xam ne moom lañ jiital mu ànd ak ñoom ci liggéey sëriñ Tuubaa bi di wax ne rek seen liggéey bi mën nañ ci wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax liggéey la boo xam ne liggéey la bu sëriñ Touba nangu kon euh, mun nañ cee wax loolu ndax liggéey la boo xam ne euh, bi ngeen ñëwee fii di ko def fii fii mooy kër sëñ Touba fii mooy barabu sëñ Touba ndax sëñ Touba léppam yàlla la lii moom mooy néegu yàlla bi ngeen ñëw euh, di ko def sëriñ Abdou Lahad ci turu Muxaddamatul Xidma ñëw foo ci sëriñ Touba di ko leeral sëriñ bi sëriñ bi dafa na tekk di ko déglu ma teewee ko bi mu waxee ba àggal sëriñ bi daf ne ko ana lan lañ warloo ak ñoom sëriñ Abdoulaye ne ko ñooñu de yaakaar naa ne Mbàkke ñoom ñoo ci def lépp ñoo warloo ak ñoom dara loolu ak ñaan waaw loolu ak ñaan mu ne kon de alhamdulilahi rabbil alamin ne ñoom de sàllaaw euh, dañ ma cee njëkk waaye loolu sama liggéey la kon nañ jàpp ne lu ñu fa def lu ne man lañ ko defal kon loolu damay jàpp ne jëf ju nangu la mu teg ko sëñ Abdou Lahad leeral ko teg ko ñu ne ko mu ne ko ñooñu ñooy ñan sëñ bi laaj ko mu ne ko daayira la bu tudd maj moo nóoree nii sëriñ Saliou moo leen ko joxoon mu ay ministres yoo xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi bëggoon liggéey sëñ Tuubaa bi nga xam ne bépp liggéey sëñ Tuubaa bu fi nekk rek buñ sañoon ñoom jox leen ñu dugg liggéey mu ne ñooñu day seen i pëstéef ak seen i jëf nar naa rëy ci sëriñ bi waaw kon man damay wax ne rek liggéey Euh, du Majmahun Nurayni rek bu nekk Touba moo ko war a jëf. Majmahun Nurayni yi nga xam ne ay menuisier lañ yi nekk ci Sénégal. ba Sénégal daj. jàpp naa ne liggéey Sëriñ Touba kër Sëriñ Touba gu mën a nekk ci Sénégal. ñoom liggéey boobu ñoom ñoom képp ñoo ko war a mën a liggéey. kon lii na ngeen ci sant yàlla bu baax. da ngeen xam ne daal sedd na xolu sëriñ bi guy xelam dal na ci waaye dool li ngeen yaakaaram. sëriñ bi daal mi ngi leen di sant. di leen xamal ne mi ngi gën a feddal ay laxasaayam ànd koog yéen ak ànd koog yéen ba faaw leen ñaanal daal ci jëf ji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 waltasun li anum dahwa mambutoni ya mughithan yu'inu kull la faqirin fukka kablal ladhi ghada karrahini rabbi bil mustafa al muqafa bibi wa tabibi min al uqda lil muhini listajib wal tusafi qalbi wa nawwir واسعا واعيا جميع المتون والتجود لي بعصمة في دوام ذا نجاة من الأذى والفتون rabbi ajil qadaa haaji wa bashir ajilan bi masajidi wa khuruni rabbi khurli wajud bi ahsani sulil ليجعل هذا الكتاب خليلي وليشهد بلفظ ما بتقاد وليجعل قف المشفع ديلي صل ربي دأبا عليه وسلم بالملا من بهم بهدات الدين ربي جل دنيا وأخرى بكوني عابدا خير diman bi khayri sadini laka darus salami rabbi wa tuba liyakun rabbi fihi ma dauduni لك دار السلام ربي وتوبى ليكن ربي فيهما داودني لك دار السلام ربي وتوبى ليكن ربي فيهما داودني والدروني يا ربي برا وبهرا ماكثا في مشاكيري ذا حصوني wal du dil li xanaatam bi rashidan murshidan bi sirri masuni wal tasuuq li maraaxibi doona kaddin aabidan xaa diman bi afdali dini wa bi anfa dunya wa ukhra yali munqizan kull lasailin wa madini wal tubashir ذوي العلوم بعلمي وذوي الجهل والتهرد ليهيني ولتباشر ذوي التعلم ترا وبيعصم jami'ahum min luhuni wal tubashir bi al yata ma dawaman ansim bi abaahum kulla hini rabbi zidni ilman wa zidni sa'yan ya kariman ilayhi dabban hanini habli alkas fa mustaqiman muniban fil kitabil مبين أصل الفنون واستجيب دعوتي وبالطف وسوق لي فوق ما حرمت باستكان ونيني